La ilaha illallah La ilaha illallah jabotuk seigne mor Fall tay mu melne dañ am taxaway bo xamni si dañ ko am fi ci xuru mbacke biñ xéeba légui muy lam fa léral ñu and taxaw taxaway bi biñ duggé ci buntu dekk biñ exé fi melne nak bir liggéey bi ci style wessu luddul muy ten bi nga xam moy tenu teenu mam jaara buso daan fi liggéeyal yalla si mamour Anta Sali loolu mu melni ni ab liggéeyam fi lako ko ba suñ borom dogal ne mu porohan, poroxaan mu melni ni bis bi bis ni tay la won kon melni señ si bi ñu fi nga ne buñ fi dikkee di njabotuk señ baara xuruja di borom sam ñu bëggoon nak lu ngeen mën a dolli si bis bi ndax day mel lépp moom sotti si ak def si la rek bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala wa ala wa ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di dogal ngant bu baax ci sunuy kàddu yi ñuy yëkkati ci kàddu yi sunuy kilifa ca ka ci jiitu muy sëriñ Ahmadou Mbacké mii moom sëriñ si dem sëñ Baara Xureja andak ak mbokk yi fi nek lepp serigne Abdou khadiram serigne Cerno ngi ni sëriñ Mor Soxna mom serigne Abdou Matiba ak serigne mam Mor bon ko limé indi mbokk yep ak serigne mam Mor sin sidi di nuyu mbokk yep xamna do ñu ci barab bo xam ni mel lu bax du doy moo tax ñu ñewat fi ngir nen demee woon Poroxaan doon fa dabu ji soxna si waye mel soxna si ku koy fàttaliku ko soxel warna dem ci diine ndax Poroxaan jën jógee soxna si dekkono fa du fa ciosanam waaye dafa mel ni ab jullit dafa gëm ne yàllaa moom suuf sépp kon foo ne war na ko faa mën a jëmmal war na ko faa mën a liggéeyal loola waral soxna si booy topp ay cosaanam nañ jógee ci Fuuta ñëw ba Jolof ba nit fii nii nga xam ne fii lañ jiit fii mooy cosaan li doon fi liggéey liggéey bu rëy li ci njëlbeenu sëriñ bi nga xam ne nii moom la yàlla dogal muy suñu yaakaar te ëllëg njëlbeenam ci cosaanam li ñuy netti lépp fii la yàlla dogal mu doon fi ba ni suñ borom dogalee ñoom ñu yëg ne ni ko amir bi maa ba Jaxu Ba yëgee ne dëgg-dëgg jullit ñi war nañoo booloo xam na dëgg-dëgg war nañoo taxawal seen bopp ngir bañ doomi soxna yi jàngale diine ñu newal leen doole ngir ceddo yi lor leen. looloo waral moom mu woote woon jullit ñi booloo sëñ soxna jaar ànd kilifa muy Serigne Mor Anta Sali Serigne Mor Anta Sali yóbbaale yóbbaale ko yóbbaale Mame Mor Jaara mii magam ndax Mame Mor Jaara mooy taawu soxna si soxna Faati door caa topp. sëriñ bi mag bi topp ci ak seen rakk Abibulaay kon soxna si daa mel ni fanweeraat ak ñett la waaye ñeent bant la ko yàlla dénk boo dee nag ki xamul day jàpp ne ko gàtt fan la ndax gàttu fan ci xam mooy at yu limu waaye ku gudd fan la ngir njëriñ lim fi bàyyi ak ni nga xamee ne xamoon na li ko fi indi xamoon responsabilité mu xam ne yàlla laa fi nekk te mooy fay jëfi te inna allaha laa yudiyu ajra muxsinina yàlla nee na du sànq jëfi rafetal moom soxna si xamoon ne dëgg-dëgg gudd fan mi ngi ci njëriñ lu rëy rëy rey ab liggéeyam a tax mu am li mu am looloo taxal nag ku xam poroxaan ku ne ak la muy sore sore nga dem fa ngir lan dabu barke dabu yitte dabu ngëneel sa xel war naa mën a dem ci xuru mbàkke gi nga xam ne nii dëgg-dëgg nag kenn waru koo ginnaawal kon dëgg nag looloo waral waa kër sëñ Baara Xuraje di waa kër Mame Mor Diarra ñoom ñu xam ne ndegam la yàlla dogal waaye kër bi dafa wax ne lu yàlla bañ loo ko def loo ko bañ bañ asal dana lu mu dogalut boo ko dee jéem xam ne doo laaw noonu noonu la ko suñu Musaa ko waxee yàlla dogal nag soxna jaara mi ngi dabu ñun ñëpp maam Mor a jaara def taam ñoom ñu gis ne bu ñu jógee Poroxaan dañuy ñëwaat fii dàq suwaat leer gi comme ni nga xam ne yéen ñi nga xam ne ni yéen a njaboot ak Cheikh Ibra Cheikh Ibra am cosaan loolu ci sëriñ bi ngir ni mu yàggee ñëw yàggee liggéeyal sëriñ bi ku na xam ne ne bi sëriñ bi demee ci géej gi lam doon defal sëriñ bi borom saam la ko doon defal loolu sëriñ Basiir indi na ko ci minewul baax xadim kon day mel ni yëg-yëg bi ñu indi fii moo leen indi fii tey ndaka jekk ngeen ko yàgg def di dundal barab bi ci loo lépp loo xam ne njariñ la moo xam lu baax la ci buri tudd yàlla ak joxew ñam ca joxew ñam dara mënu koo jiitu ci diine ndax euh, boo demee ci alxuraan buy ŋàññi ñi weddi bis penc dëgg-dëgg da caa boole waale ñi nga xam ne nii duñ jox nit aw ñam waaye kii jox aw ñam kan lay jëriñ nag mooy ki koy joxe ngir yàlla rek te xaaroo ci dara innama nut'imukum li wajhi llaahi laa nuriidu minkum jazaa'an wala shukura ñu fekk fi nag sëriñ si Abdou Mbacke moom leen fekk ci barab bi magam di sëriñ Abo Mbacke mooy imam fee ci Médina Thiakho ku ci ne la maam nekkoon di dundal alxuraan di jàng ak jàngale yar njaboot gi ci dundee seen ñaq loolu leen fi nekkee nga xam ne ñooy taal taalu jàngu sëriñ bi ñoom ci la nekk loolu. nga xamee ne sëñ bi mbiram loola ci jiitu muy jàng alxuraan fii daaraa ngi fi boo xoolee xale yaa ngi fi di jàng sëñ ndax sëriñ bi dafa wax ne képp ko ko ku ko bëgg seetal noo def ak alxuraan nee na su la gane ji woon la nga jàpp ne ko nga koy ganalee muy yëg ne ngan la nee na mooy alxuraan dem nga ci busra lana mun a loxoo sukkoori bi quraanin urattiluhu min saati lirtifaahi waaye waxuwa lii wala mu la ca teg ca ah, jës bu mu ne wax qalilun wax habib lii mux neen lii anta bi bi yuhibu ne labib yadlu wa xayra laqami man benn xarit laa am benn soppe laa am ku bëgg ci may bëggee ku may bañ ca may bañee muy alxuraanul ca xasida ak muxaddima dana alxuraan mooy loo xam ne nii tey danaa la wax ne la bul gis nit ki nga yëngu ci alxuraan mu lay sàggade ba nga jàpp ne yow da ngaa woyof déedéet yàlla dafa jël sekkiram nëbbu ko ku dul waa alxuraan isa ma talaw na aaya fas naa bi maxtafa ala xayrana min sirrahil jaari bi bi comme dafa nëbbu ku dul ñoom looloo waral alxuraan ci boppam barab bi moom lañ ko njëkkee moom bis bi Seex Abdu Seex Abdu mi fi nekk ak Sëriñ Abo ñoom seeni daara yiite nañ ci jàng alxuraan jiital nañ ci salaatu ala nabi jiital nañ ci jàng xasiida doora nag yëkkati seen alal seen aw ñàq ak mbokk yi ñu ko àndal ñëpp nag ngir berndeel mag ñi fi ñi fi ñëw ñii sàkku si leeru leeru soxna si kon yéen ñoo ngi leen di sant yéen ñi nga xam tasaare lu baax ndax ni yàlla bañee ko tasaare lu bon noonu la santaane ci ñuy tasaare lu baax bon bu ngeen demee ci hadis hadisatul ifki bintu waale sayyidatuna Aïsa radiyallahu anha yàlla ngi ci doon ŋàññi ñi nga xam dañuy siiwal aw ñaawteef inna lasina yuhibbuna an tasal fahisha waaye tagg na lool ñiy feeñal lu baax kon nag bu ngeen tasaaree aw yiw ba am ñoo xam ne ni xamee nañ xuru mbàkke ko ci yéen am ñoo xamee nañ soxna si ak a xamee ko ci yéen kon yéen ñi ngi leen di jaajëfal baax di leen sant baax ci taxawaay bi jërëjëf bu mu mel ne ma déggee ni nga waxee ndigal li sëñ tubaa joxoon sëñ Bay Jaxate dellu joxaat ko Cheikh Ibra tànk yooyu ngeen toppaat ba moo waral daara ji loolu it moo watatuwaat teen bii ku ne xam na ne demoon na ba xawoon na mel ne lu kii sëñ Abdou Aziz mu sëñ Mortala mi nga xam ne moo njëkk ne xalifa sëñ la sëñ Saliou joxoon na ko ndigal mu sécrété woon ko ginnaaw loolaat amoon na sëñ Abdou Rokhaya mii ñëw toog toogaayu sëñ Mortala ba tey amaat soxna soo xam ne si soxna aadama lañ koy wax moom muy gëstu ba gis jeexital goo xam ne gis na ne war na see liggéeyal soxna si dikk def nii mu def teen bi nga bisu tey bii magal jëmmi teen bi moko waral ak ndox mi ci nek xewal gi mu waaw mom day lo xamne ni xam nga seigne touba moy lo xamne ni day go xamne ni nit mënu ta ko wax fi deug deug wax seigne bay jaxata mi ni mom la fi seigne bi dayaloon ta ko wax sëñ Mortala Fall wax comme ni nga ko waxee sëñ Assis Fall moy lima malah la wax mbir la mo xamne ni mbir la mu jara dah. xal dakh ba fi mag ni li tax ñu da bënnam ten booba ndox da amuton ta ñu bëgg njariñal nit ñi ndax nit boo ko bëggee te faw nga am loo ko téye su ñëwee nag ñu bën teen ngir ki tumuraankoon ci ndox boo ñëwee mën nan waaye rawatina fii nga xam ne ni baa xam ngeen ne fii la soxna si daa rawatee di fi togg ak bagaanam ñaareele mooy fii nga daa dégg na bu bootee sëñ bi barab bu nuy caaxaane képp ku ko mën a boot muy soxna si wala ku mën a dul ne doo ko romb doo ko jub sëñ bi dana yëngu-yëngu goo xam ne nii da nga xam ne dëgg-dëgg sëñ bi li muy bañ mooy ko jaar fii te booba tout tànk la mi ngi ci ginnaawu soxna si dégg nga kon barab la boo xam ne nii képp koo xam ne da ko koo tasaare wan ko nit ñi defal nga ni ñi xéwal gu bare bare bare ndax nit ñi bëri na ñoo xam ba ñun lu baax waaye dañ ko dul xam am na koo xam ne lu baax mën na ko dégg waaye doodu xam naka la cee jariñoo kon yu mel nii rek day jàppandal nit ki ngir bu ko déggee fan lay jaar ba mën a ñëw ci barab boobu kon bëri ñoo xam tey man naam bu ñuy ñëw xur mbàkke ginnaaw buñ leen seetaanee yéen seen taxawaay yéen a leen i yéen doon lamp bi leen di gindi ban mën a xam fan mooy xur mbàkke mën a xam cosaan xur moo ciy taxawaayu Serigne Mortala moo ciy taxawaayu Serigne lan moo ciy taxawaayu waa kër Serigne Bara Khoudia yi yéen fi fekk lan mooy seen cosaan bu leen jërëjëf Mbacke Balla kàddu yi am na solo lool mu mel ne waa Lamp Fall leeral sëñ Massène Loum Baye Fall sëñ Ibrahima Diaw sëñ Moustapha Sarr sëñ Maam Góor ñu wàcc foofu kàddu gi ndax mel na ne ku ko déglu topp ko lim indi si kàddu mën koo leeral lu lu lu lu matale la bu fekkee daa am lu mu fàtte lu mu bëgg a kii. waaw li ma doon fàtte mooy. Serigne Khadim Mbacke mooy magi Serigne Cheikh Abdou mii xaj na jataay bu gatt ñu teunk ko lool rek tax mom ñu fàtte ko waaye moom leen waroon a ndax moy borom barab bi bim ko nekké and ci seigne Cheikh Abdou mii di rakkam ñoo bokk nekk fi lool rek la fàtte woon waroon koo jiital kon ñoo ngi jéglu bu assalamu alaykum kon Serigne Ahmadou mbakki khalifa Serigne Sidi seigne baara kon Serigne Ahmad yaay def ñaan incha allah la ilaha إلا الله لا إله